jeux bi di Cambérène tey nag booloo bu takku teewe woon nañ fa layen naka noonu jullit bu bokk ci bépp confrérie yi wuñu nañ wooteeg 143e appel bu ñuy màggal rek anniversaire bu Seydina Limaamu Laahi almahdi mbégte sàkk fës ci kanamu fidèle yi muy mag muy ndaw. man parce que at bu ne damay ñëw appel man maa ngi jóge Jandeer dëkk bu naa Kemaay foofu laay jóge chaque année ma ñëw gëj na ma kattar di la wat ñaar fukki at a ngi toujours damay ñëw kontaan naa si yoonu Seydina Limaamu bu baax a baax a man nag taalibe Seex laa sëñ kër Si rek moom laa yaakaar mais nag këri diine yëpp laa yemale du ma manqué Touba du manqué Yoof du ma manqué Njaasaan ndax kër këri diine yëpp benn benn la. ah mbégte moo xam ne am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem xéewal gi di gën yokk di saawaan di baawaan ñun ñi waaye bi ñuy yëg ci lii fi ñu fekkoon ak fi mu ñu yóbbu wute na trop dem na ay kilomètres. yile jamono nag ñi koy xaarandi bu baax di tax rek ñu mun a daje ngir ñaan di wane itam seen la ci Seydina Issa Laye. tam jàmm lañ si war a ñaan te am naa yaakaar sanga yi moom dinañ si ñaan jàmm bu baax ak ñun xam te parce que réew réewum Sénégal moom jàmm naa si mën solo pour réew mi mën a am jàmm. parce que euh, doomam naa Issa moo ne woon euh, ku bëgg a gis sama baay si man ngay jaar looloo waral bu appel ñëwee Cambérène la ñuy njëkk bu ngeen gisee ñuy njëkke Cambérène loolu moo ko waral. di jugee Cambérène jëm fële ca Ngor ngir la digle yi nga xamante ne lu appelu Seydina Limaamu Laahi bi laaj na ko ba tax na sax yëguñu coono naka noonu naaj gi taalibi laayee nii nag dara mënu leen a téye ñu namm nag wuyoo tey jile laay maktaar.